année euh, scolaire bu stable ak lii enseignants yi di wax quantum scolaire bu normal ñu jàngale ko maanaam volume d'heure bi nga xam ne moom lañ prévoir ça fait des années Sénégal nekkul dans les normes ci wàllu bopp loolu échec la kon ñu ngi coow rek di wax mais secteur euh, enseignement bi mi ngi euh, daanu ñàkk niveau bi ñëpp gis nañ ko université Sénégal yi fi nekk boo xoolee boo ko comparé ak standard ak yeneen université Euh, même ci sous région bi sax ak euh, Afrique de façon général classement bi baaxul waxuma la nag feneen ak feneen euh, kon loolu yëpp vraiment problème yu doy waar la li ci doy waar nag mooy ngay gis gouvernement bi toujours def nañ nangam ci milliards def nañ nangam ci milliards loolu moom war nañ xam ne manager benn secteur du question rek def ci xaalis def ci xaalis c'est bien sûr c'est c'est mais surtout relation liñ efficacité bi nga xam ne relation la entre résultats yi ak moyens yi maanaam yenn résultat lañ am réellement ak moyen yi ñu ci def est-ce que waruñu woon am résultat yoo xam ne moo gën a baax loolu sur le plan quantitatif ak sur le plan qualitatif donc du question rek def naa nangam ci ay milliards mais euh, nan lañ ko defee ak euh, yan priorité lañ def ak tamit euh, fan lañ ko def ci personnel bi lañ ko def wala ci qualité enseignement bi wala ci tabaxaat ay école et cetera cetera kon loolu yëpp lu jara bàyyi xel la mais quand objectivement li ñu gis mooy secteur bi dafa nekk en crise et particulièrement condition de vie enseignants yi dafa nekk euh, problème bu rëy euh, te injustice am na jëm ci ñoom euh, parce que ay at a nii gouvernement bi di jël ay engagement bañ ko respecté te président Macky Sall en particulier xamoon na loolu xam bu leer nañ ba bi muy ñëw wax na ni man dootuma signe loo xam ni sama gouvernement du ko mën a régler au plan budgétaire maanaam pour wane ni il se distingue de son prédécesseur nga xam ni ab lay Wade da doon signé lu ko neex ak nit ñi te budget bi du ko attan wala en tout cas du ko mën a respecter kon président Macky Sall mënuñ ko pardonner le fait que euh, mu bañ a respecter engagement yu gouvernement am signé depuis son premier mandat euh, ñaan nañu njëkk enseignants yi plusieurs fois société civile bi dugg ci euh, kon nag loolu faute bi d'abord c'est au niveau du gouvernement et du régime du président euh, Macky Sall euh, depuis bi mu nekkee au euh, pouvoir injustice bi ñuy teg tam enseignant yi man xaw ma fu ñu ko teg parce que tey boo déggee ñu ne wuy magistrat yi dama koy faral di dégg. mi ngi noonu. mais xool irresponsabilité boobu ak manque de respect. par rapport ak secteur boobu nga xam ne c'est un secteur crucial dans l'émergence entre guillemets wala le développement d'un pays mooy le capital humain léegi mooy li ma doon wax sànq da ngay dégg ñuy fay salaire yu baax ak ay prime ah ay per diem euh, fay ko yenn corps yi tey magistrat yi ñu nekk impôt domaine ñu nekk ministère des finances euh, douane et cetera daanaka ñu ngi fay ci biir xaalis waaw cinq cent mille euh, et quelque ci loo xam ni du ñu apporter dara le pays donc gis nga parce que rek jabaru ambassadeur lañ mais sinon amuñu benn mission publique voilà loolu nga sañ ko def ci réew léegi nag ñi nga xam ne dañuy jàngale ay quatre-vingts élèves ci benn classe euh, tous les jours euh, ak conditions yi ni mu méttee léegi ñooñu lu jëm ci ñoom rek ñu sàggane ko bañ a respecter seen engagement wala bañ leen a jox loo xam ni mën na sedd seen xol ci wàllu ci wàllu payoor loolu euh, gàcce la ci réew mi c'est une honte nationale la boo xam ni gisuma fan lañ ko teg te war nañ ko lijjanti grille salariale bi dafa injuste ñëpp xam nañ ko mais bëgguñ ko régler def nañ ko audit ñoom woo nañ fi cabinet fay ay xaalis bu dul jeex bu xaaj ba pare jëlaat loolu ranger ko ci ne dafa sensible parce que suñu laalee fii xaw ma lan suñu laalee un gouvernement qui n'ose pas rétablir la justice entre différents secteurs de la république kooku du gouvernement parce que kon na équité bi ñuy wax te constitution bi wax ko kon nag vraiment euh, euh, su ma déggee par exemple ñu naan la euh, magistrats yi suñu leen fayul bu baax dañuy corrompu douaniers yi suñu leen fayul bu baax nangam nangam ma ne waaw douanier boobu kan moo ko jàngal bind ak liir ba mu mën a nekk douanier le plus grand cadre bu nekk tey inspecteur impôt domaine ku ko jàngal bind ak lire ak calculer il ne fait que calculer l'argent public mais ñi koy produire di produire euh, ay nit yu mën a jàng mën a bind ak di produire agriculteurs yi et cetera ñoom ñooy produire euh, la richesse nationale en termes de personnel humain qualifié et en termes de de de richesse euh, kon comment se fait nga bëgg a sàggane ñooñu ci turu léegi que nit ñee suñu leen fay bu baax dañuy am corruption su nangam loolu wax dëgg yàlla lu ma lu ma jaaxal la te loolu kon moo tax enseignants yi mais kenn waru leen yedd ci dara mais eh, léeg nga dégg ay nit oui enseignants yi tam dañu bëri grève dañu bëri nangam kii wax loolu soit moom du enseignant soit euh, doomam mi ngi jàng extérieur wala nangam nangam loolu rek lay demee waaw réew mi nag mi ngi noonu ñoom ñooy wax mel noonu mais ku xam condition de vie enseignant ak condition yi ñuy jàngale éléve yi la preuve mooy tey jii bépp Sénégalais boo xam ne am nga moyen tey sa doom foo ko parce que au moins euh, daanaka duñ grève ci année bi ba pare euh, classe nombre bi xaw na limité ba pare dañuy fay ay prof yoo xam ni ku ñëwul heure jàngale di nga ko diggaale ak ñoom et cetera système bu mel noonu lu tax amul ci système public bi parce que système public gouvernement bi faalewul leen donc wax dëgg yàlla kooku échec la ci euh, le régime actuel euh, bokk na ci limu mu échoué secteur enseignement bi ñàkk respecte engagement yi ak ñàkk xool dëgg-dëgg secteur bi li mu laaj ci wàllu humain ak ci wàllu financier ak ci wàll yëpp euh, ñu teg ko ci yoon nekk fi nag di wax émergence ak développement te mënoo régler problème de base bi nga xam ne mooy le capital humain ducation la formation euh, des des des hommes et des femmes kooku vraiment euh, échec la te ñëpp ñëpp nga koy gis su nekk nii donc wax dëgg yàlla enseignants yi am nañ droit laaj seen àq ni ko ñeneen di laajee ak ñi nga xam ni ñeneen ñi nga xam ne ils travaillent moins que ils apportent moins pour le pays ba pare di di nager ci xaalis su nekk nii ci réew mi jaaduwul tegul fenn